pour remercier l'inspecteur Anselissa qui nous a mis en relation avec un inspecteur spécial. Non seulement il est compétent, mais il est très généreux pour son travail peut-être l'a fait mon éloge. Mais moi, aujourd'hui, il m'est très difficile de trouver les qualifications qui mènent sa personnalité. Merci encore une fois, M. le Peut-être le travail a été un travail de à haleine. Monsieur l'inspecteur Parce que depuis 2022, nous avons commencé le processus. Mais cette activité, on l'a fait à l'espace de 15 jours. Et grâce à lui, grâce à sa compétence, nous avons pu réussir à contacter pas mal de partenaires. Nous avons visité l'ensemble des ambassadeurs, mais aussi certains ministères, pour qu'on puisse avoir un partenaire de taille, vu le travail que nous avons. Aussi bien les enseignants que les élèves. Merci encore une fois, Monsieur l'inspecteur. Moi, je suis saint faire on ne connaît rien à Dakar, mais à l'espace de deux jours, il était non seulement notre inspecteur, mais il était notre guide. Je donne une mention spéciale aussi à M. le maire Arnaud Parce que s'il n'était pas lui, avec son soutien, financier, on n'allait pas avoir cette réussite. Au passage, on remercie aussi l'adjoint au maire il nous a facilité la tâche. Il nous a donné tous les moyens. Il nous a trouvé un hôtel, mais aussi nous a donné de quoi s'entretenir durant tout notre séjour au niveau de la barre. Peut-être mon intervention va se limiter toujours à des Je remercie ma commission notre groupe est un groupe hétérogène, parce qu'il n'y a pas d'appel qui est dans ce groupe. Dans cette commission, mes deux présidentes sont, dans l'opposition. Madame Aïdefan, elle est la présidente de la commission éducation, alphabétisation. C'est une opposante. Madame Ali elle est ma présidente de la commission formation, insertion des jeunes, mais aussi l'ensemble des membres, les autres membres, par exemple Marine Gay, il y a qui est là-bas, sont de l'opposition. Nous qui sommes de la paix, nous sommes militaires dans cette commission. Même fois, si nous parvenons à avoir ces résultats, c'est grâce à leur collaboration. les gens disent que les opposants et le pouvoir sont en train de se chamailler, c'est pas notre cas. Nous sommes l'exception à la règle. Je remercie, comme l'a si bien dit mes précédents, l'infatigable Papa Juan vais pas terminer parce que je sais que depuis une heure vous êtes là. on a, on a eu le cocktail et le repas est là. Donc, ce que je vais faire, c'est vous, montrer ma gratitude, vous remercier au fond du cœur, vous donner aussi bien les remerciements de toute l'équipe municipale, mais aussi particulièrement de M. le maire André Merci un peu. xam naa ne tey dina ma jafe lool ma daj baat nga xamante ni mooy méngoo pour mu mën a wane sama mbégte mais jaajëfal ñi ma àndal ci liggéey bi ma si njëkk jaajëfal. when she Mwenushelamel Amkumasafai. Communico l'inspecteur Rohen, fait le début du fallait si possible. 2022 ba tey mu nekk sur le terrain duma dellu si waat parce que ñu ma jiitu ñëpp wax nañu processus bi ni mu demee boobu ba léegi ñun ñëpp ñoo ngi ànd di liggéey liggéey bu mucc ayib kon suñu yàlla dimbalee ba mu egsi fi tey kilifa njëkk nga remercier mooy monsieur le maire Amadou Massa Faye ndax bu jëlee comité jël signature jox ñu kóolute bu wees loolu te ki la wóolu mënoo lu dul fexe ba moom lu dul ndam rek kon maa ngi koy remercier mais tamit di remercier lief de Saint-Louis ndax moom tey jii bu ma amee liggéey bi ñu am moom si taxawaay bu rëy rëy moom si li mu jaar yi mais dañu mu boole nag ku mel ne inspecteur Cissé xëy na ma doon kat fii mais daf may nax moom moo ko nit gën ko damay toog seet dama naan à chaque fois ñun bu la xoolee dañuy jàngat si yow ndax il est très discipliné yàlla mais ku jox nit cër la bi ñu demee Dakar ñu xamul daal Dakar du ñu lusu chauffeur moom mu nekkoon aussi bien inspecteur mais aussi mu nekkoon suñu gént Dakar nekk loolu quartier yi sorewoo ndax xam ngeen ne ambassade bii lay nekk fii nekk fële mais en deux jours si ñaari fan moom fexe na ba vingt trois invitation joxe na si diggante ambassadeur ak ministère ak ay directeur général kon moom il faut ñu jaajëfal nee naa su ma amoon beneen kàddu bu doon jaajëf dina ko ko wax dañu ñaan daal nag di ko ñaan di ko ñaanal chef di ñaan yàlla lépp le monde éducatif kenn ku si ne wala wa nga loo mën rek bu demee lu ëpp ànd ak ay nomba ak koy yokk xëy na mbégte dina ma jàpp ba pour ma am carte yi nga xamante ni moom laa bëgg génne sax du ma ko mën a génne mais su ma ko remercier remercier naa yéen gépp remercier naa Balla ndax moom ak Balla ñoo àndoon nañu sur le terrain xam naa fàtte naa wax sax anecdote boobu si biir en li may wax français bi ñu yeggee école Moussa Diop si koor bi dama ndiyal naan leen ana sama oto ndax tellement que dama xiif ak man ñun ma sa oto rek dama leen kii su ko def dafa weex xam ne dama oto bi giri la wala weex pour nga xam coono bi nga xam ni doon nan ka daj te bu nee nan sonn nan sax moom mu encourage bi déedéet nan demaat ñaari école rek kon moom amul lu gërëm que remercier di ñaan yàlla moo xam ne mu bëgg yàlla na ko yàlla defal su ma jógee si loolu ki may gërëm mooy commission bi ma àndal ndax maa su dafa ñu boole ak ñaari composante ministre Ogal ñoom yëngal nañu mairie ba ñu ne comme que Firuz dafa la rek dafa bàyyi ñaar doon mais yàlla dimbali na ma ba ñu rusloo ki yore njàng mi ak alphabétisation muy ay defar composante la muy awoonu demain ñeneen ci biir ñëpp ñun ñett lan ci xaw ma ñoo fi affaire muy sama tata euh, naati saw ngalee la dëkk mais dafa naan ma lu xew woo ma buri moom mention spéciale ba nu commencé moom dafa fi jëkkëram gaañ muy muuru mais dafa àndoon ak ñun sur le moo tax ngeen gis ko ci photo yi ndax mu ngi def lu rek opposante la sëy lëmb moom si commission bi la bokkoon xëy na dafa feebaroon mais bi mu tane bii bi ma koy yóbbu dama koy yóbbu fii ngay jógee ndaxte dafa topp raw pour nga gis nit ñi ëmb bi nu amal euh, éducation mais ëmb bi nu amal pour liggéeyal seen askan kon faaw ma remercier ndax man mosu woon xam ne moom bi muy ñëw si ñun yëpp raw lay jógee di ànd ak dama ko sant kon bu nga gis ñu naan opposition bi ak pouvoir dañu mel ay xaj ak bunt ñun suñu commission yàlla sutural na ñoo bokk day ak bàyyi bu kenn ku si toogal moromam da koy gërëm ba da nga naan kii nanga la dafa naan muy sa géwal kon ma leen di defal mention spéciale mais dama jeexal te remercié wu ma paawan ndax li inspecteur wax dëgg la mag la mais éducation moo ko damay woo si téléphone nangam nangam ak nangam kon il faut ma remercier que di remercier képp koo xam ne deux jours yi ñëw nga ànd kaat ñun mu terminer te remercier ma Aliou Diop xëy na processus bi def mat na deux ans mais activité bi si quinze la moom mënu nekk à batara jox ñu xaalis ñu dem leen ngeen def ngeen bëgg def yéen maire bu fekkoon ñi mu àndal ñëpp di liggéey dañuy def comme alinto kon maire du sonn kon il faut ñu defal commission spéciale di remercier aussi monsieur le maire ba leen dim de ngi yëkkatiwaat poosam ni ma am dimbali boobu si sa commission kon moom mun ma am mun ma noppi di ko gërëm di ñaan yàlla yéene bi mu am si ndaw du école yi rek de si ko am ak kër comme li inspecteur wax keroog bi mu gisee vidéo bi bis état des lieux la ko jël teel boppam le même jour na ko capsule trois à la la nga jox le président keroog bi mu bi premier ministre ku ne gis na ka plaidoyer éducation rek la def moo tax bi mu ñëwee gis ngeen démb dafa waroon voyager. mais bi mu demee Dakar City dafa ne ma dama waroon voyager le vendredi mais dinaa ñëw présider ko ba mu jeex ma soog am jël bon dem bi muy tàggoo ñu direct la def Dakar kon kooku su ne bëgg na la kenn ko werante dañ koy ñaanal yàlla waa nga moom fi mu porté say nit bu baax la kenn gën ko di gërëm ñëpp nag nga xam naa ne gërëm du mënul at mënul jeex te gërëm ma que faleceu, que é uma coisa da formação social. Avant, eu me dizia ah, ah, que daga ne kon directeur nekk waa maa man ma yore carte de vie ndax je suis en en deuxième en deuxième mandat te bi muy sama deuxième mandat ku ma mës a é uma ni ma é ci li na allah amul dimanche amul samedi li naan c'est un homme qui travaille à l'ombre yàlla li ma wax si inspecteur dimanche sax dama koy su ko nee alors bàyyi man ma di ma dama mel loo soxla woon loo fi gis muy banderole muy set lépp moom la xëy na dina nit ku baax bu yar la suñu jumaa jee bi ma dina fa yóbbu ñaari moo tax bi ko namee directeur dama ko ne le meilleur à venir kon jërëjëf Cissé di gërëm ñëpp di sant ñëpp di déclarer fermé au clos si activité bi ñu def di leen ñaanal dellu jàmm di wax nag leen ci retenir ñëpp yàlla na am ay retombées ñu seen restaurant bi seen yeeg lone yi gis seen bopp sama directeur bi ñu ne kii sama xarit la muy baxu jee kii sama frère la